jotaay bi nag li ko waral mooy dañuy préparer set setal ngir waajal appelu Seydina Limaamu alayhi salaam bii di waaj a ñëw su maam ñaay saa wax na ko léegi ku daan ñëw du Cambérène dàll sax daanoo ko fi sol ndax ni dëkk bi meloon Cambérène boobu nag lañ bëgg a delloosi si seek seeg mag ñi ànd seeg ñëpp képp ku dëkk du Cambérène am na calendrier boo xamante ni ficelé nañ ko ngir waajal journée bi ndax boo xoolee le 4 ak le cinq mars mooy appel bi di ñaan yaan si yàlla yóbbu ak jaam ak salaam moo tax comme ni ko Mamour waxee dañ daan def benn jour dernier dimanche bi ñu nettoyé ko ñu dem ba liggéey bi bari ñu gis ni liggéey bi dina day naaje du pare wala parfois sax dafay des ñu ni kon léegi nan ko étaler def ko deux week-end bari ren gi yàlla dogal innovation bi ci indi mooy deux semaines avant la ñu ko def looloo waral ñu jël du 20 bala le ba le le 27 du février le 20 bala vint 25 ñu ni comme Cambérène dafa am ay ëtt te lu ëpp ci Cambérène foofu la ñu nekk te liggéey bi foofu la gën a bare nit ñi fa la ñuy dal ñu ni nan commencé du 20 ba le 25 ñu ni ëtt yi la ñuy commencé lay su ko defee ëtt yooyu incha allah rabbi fii ñu nekk tey di di quartier kër gu mag fi lañ bëgg a démarrer lancement boobu. incha allah rabi muy la fa euh, ci nuyu waale délégué de quartier du kër gu mag muy Baye Maguette Seck yaakaar naa Baye Sele ka fi teewal ñu ni le 26 février si lañ war a nettoyer littoral bi ndax ko wax littoral bi gis ngeen travaux yi fa nekk gravats yi fa nekk ndax entreprise bi fa di liggéey liggéey bi du pareegul ku am sa gravats yi fan ngay sotti ni ko Mamour waxee liggéey bu metti bu bari moo fay xaar incha allahu rabi le 26 foofu la ñuy jël ak entrée du Cambérène bi ñu ni le 27 février mooy set setal général bi bu nee set setal général bi nag day ëmb lépp loo xamante ni nekk na ci biir dëkk bi moo xam tali Ndiaga Mbaye la fa mu commencé ba Nations Unies jàpp deux voies yi euh, deux voies yu Cambérène entrée Cambérène tali jàmm gën ak ci biir dëkk bi yaakaar naa mooy la route euh, principale loolu aussi mooy artère principale yi nga xamante ni mooy journée le 27 bi kon yaakaar naa liggéey la boo xamante ni liñ ci soxla mooy mobilisation laalaay dina ci ñëw su ko defee ñu xam ni euh, li fi dajale lépp ay association la ak ay mouvement Cambérène kenn ku ci nekk da nga jógee ci quartier représenté fa sa quartier ñu xam ni sensibilisation bi jàll na au niveau de la jeunesse wax fa dëgg yàlla mobilisation la ñuy xaar ci yéen su ko defee kàddu gaa ngi noonu ñuy wax rek ni yàlla nu yàlla dimbali ba lii ñu nu jox yàlla téeñal lu ko man ka man a ba nu mën a atteindre suñu objectif ndax yaakaar naa benn nit rek mënul liggéey du Cambérène Cambérène pour liggéey ka il faut nga mobiliser dëkk bi yëpp te gis na ni waa Cambérène kenn gënu leen bëgg seen dëkk. innovation mooy lancement bi déjà wane ni innovation la implication dëkk bi aussi wane innovation la je que loolu aussi am nañ ñun sax maanaam fierté. confier liggéey bi xale yoo xam ni xam nañ ne mën nañ ko continuer maanaam liggéey continuer te rek la maanaam da dem ba fa nga yem nga ànd ak ay xale ñu gunge la ñooñu bu demee ba sa ñeneen àggale donc Libaas mi nga xam ne tey jii mooy le nouveau coordinateur de ce collectif ñun dañuy réitérer suñu engagement derrière vous ànd ak yéen jàppale leen suñu expérience bi si am Libaas Diop ngi nii il est tey moo doon coordonné liggéey sur le terrain man maa nekkoon la partie administrative ak yeneen ak yeneen duñ leen bàyyi dinañ ànd ak yéen taxawu leen jàppale leen ba li ngeen bëgg si dëkk bi te kilifa yi sas na ko muy suñuy yëf ñu ànd si yéen ba mu ba ba mu rafet mooy engagement bi ma jëloon ndax tey jii sax dama ne du ma wax ndax ñoom lañ ko jox ñooy coordonné ñun dañ leen di jàppale mais wax na ma ne il faut nga mettre benn rappel le seul rappel def mooy liggéey dëkk bi yombul il faut impliquer tous les quartiers il faut impliquer tey jii ba fa sax quartiers yi mais les périphéries sax dem leen seeti leen def ko par zone ku si nekk ñu xam ne dëkk bi ñoo soxla defar suñu dëkk bu ko defee bu ñu bàyyi kenn ñëpp di daje ñuy pré àndandoo si préparation bi bu ñu paree ñu évaluer tirer les conclusions bu ëllëgee ñu xool naka ñu def suñu temps. alhamdulilah rabbi alamin sant yàlla bu baax leen rek moo ñu dajale muy waajal wooteb Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam 4 cinq mars incha allah bii di ñëw ñu ci teeru gan yi fii xamante ni fi leen ubbee appel bi. muy dëggu gàddaayu Seydina Limaam alayhi salaatu salaam fii la ñu ubbee appel bi ci dëkk bi mu doon dëkk bi appel bi nag yokk lool ci Cambérène ndax euh, Nations Unies lay commencé ba kaas ba lépp dañuy appel kon nag loolu ëpp naa coof dëkk bu toll ni Cambérène yanu appel bi ni ko Sërif Ousseynou laay doon waxee ni ko Imaam Makhtar di waxee ni Cambérène foo dem yëg nga ni appel bi yokku na fa. kon nag foofu la ñuy taxawee woo njaboot gi woo tamit jeunesse bi woo mag ñi oo dëkk bi yëpp leen wax ni loolu ñu taxawal muy le 20 ba le 27 set setal bi nga xamante ni dafa war ndax islaam sax moo ko njëkk a digle set dafa bokk ci jaamu yàlla te nag bis bu toll noonu nag ak fi àdduna bi toll ak fi feebar bi toll buñ koy def dañ war a waaj bu baax set ndax fa la àddina toll kon nag euh, comme ni li wax Samba waxee rek bis bi ni euh, njëkk a commencé da nga commencé fii si jàkk ji ba jàmmalaay muy ouverture liggéey bi ndax lay lay commencé a yi ndax euh, gan yi war a ñëw lay ëtt yi ndax Nations Unies lan commencé nag ba Cambérène gi yëpp bàyyi ñu kenn Cambérène 2 di si si bàyyiloo xel bu baax chef quartier yi kenn ku ne boo demee nga informer sa quartier dañ war a liggéey ci lay ëtt ëtt yeeg mbedd yi li ko dalee le le vingt ba ba le vingt six ndax loolu dafa am solo lool information bi jàll si ñëpp ñu ngi si woo jeunesse bi yëpp di si woo diaspora bi sax dinañ si bàyyiloo xel ci liggéey bi. ndax nag appel bi nag ku ku ku xam ni ku yëg appel bi xam ni appel bi yokku na mais fii nag suñu dëkk bi di Cambérène muy dëkku gàddaayu Seydina Issa Rohou Laye di dëkku gàddaayu Seydina Limaamu lañ si am taxawaay bu am solo mu ñu si def kon nag di leen si bàyyiloo xel bu baax ci liggéey bi di wax ni tamit ñi nga xam te ne dañuy dañ def ay travaux ci Cambérène euh, xeer yi garaawaay bi ñu leen ci wow bu baax balaa liggéey bi commencé ñu mën ko tonni man ko yóbbu ci fan koy yóbbu ndax euh, dañu bëgg mbedd yi leer naañ di woo di oo timit nag ñi nga xamante ne ñoo gaare si dëkk bi ay oto dem seen kër ñu ñu gën si bàyyi xel balaa balaa la le vingt six ndax le vingt six seen la war a ànd ak police ànd ak préfet dindi lépp désordre bu am si deux voies yi ak timit ak si ba ba Nations Unies bëgguñu oto gaara fi ndax dañuy waaj bis boo xamante ni mooy suñu gan gin am te sunu feet national la muy woote Seydina Limaamu am ñu dul moom amuñu dul woote bi amuñu dul woote bi ñu dul woote bi kon nag ñu ngi leen ci woo bu baax di leen informer ñiy gaare oto ci ci dëkk bi ñu mën ko teel a bàyyi xel euh, dindi ko ba ba ci terrain bële jamono incha allah dan dañ siy def liggéey bu am solo ci le 26 pour ndax fa la gars ñu jóge Yoff fa la ñuy gaare dugg dox dem appel bi kon nag euh, parking boobu dañ ciy gën a bàyyi xel pour ñu ñi fa def oto ñu bàyyi ci xel bu baax deuxième jour bi muy le 27 bi comme ni ko la Samba rek dañuy soxla nag ñëpp ci gox yi na ñëpp commencé seen i gox chef quartier yi commencé seen seen i quartier euh, le 20 lay defar mais le le 27 nag seen luy def général bi.